ñëw ci sa poulain ci euh, Kara Dollé ak combat am beeg. Euh, non non Kara ñu ñëw ay poulain am. la waaw ñu ñëw ay poulain am. <laughs> kon boog kon sa tête de file kon boog sa tête de muy bëreeg moom ak euh, Mama Yaa noo gisee boobu combat. Kara Dollé. ndax keroog damaa seeti Mama Yaa ba ki démb. waaw mu ne ma dama ko bëgg a mhm. ndax dafa wax ci sama mag loo xamante ni rafetlu ma ko. muy ci li mu wax ci amaneex mu ne nag da koo bëgg a corriger. tax mhm. moo tax mu jël làmb ji. maama yaa mel ne Alkara doole taxaw na ci yow laa ko déggee de. yëgaguloo ko. wër na man du ma fen. est-ce taxawul dimanche xaw ma samedi samedi bii passé. waaw ci yow laa ko déggee mais tamit na mel ni yëg nañ ko bu yàgg rek. yaa ngi dégg Kara Dollé moom champion la te moom su bëggul nga daan ko doo ko daan moom dama lay wax loolu ci moom moom. xamante bu baax. maama yaa laa lay wax di bu tëngëj <laughs> la mooy waa tëngëj tëngëj kay mooy loolu dañoo yoon ñu nekk yoon rek barke alxuraan mais dama la Kara bu bëggul nga daan ko doo ko daan te maama yaa moom noonu bu dee day cotiser xaw ma CRA mu ngi nax boppam de na ñëw indi tekk ak tey de. yow est gis nga maama yaa. waaw yow moom man yow Treize Ndiaye dama xaa gis bëri moom ma su ma waay loolu gis mooy lan. gis gis mooy lan boo gisee ba nga xamante ne moo ko sut. waaw te ëpp te te kaa doole léegi moo ko sut ëpp ko léegi euh, loolu lan mooy différence bi. Ah, est que doole ji mënul ne foofu. non tamit yow yàgg ñaa ñaata yoon nga gis fi koo xam ne mooy ëpp nit ku ndaw ki jàpp ko di xaw a rey affaire yi fond la un fond billaahi wallaahi an mën a tenir sa bopp barki naa Mohamed ay mais maam Kara Dollé Kara Dollé contact nañ contact di di contact chaque jour mais xam naa Kara Dollé quoi maama yaa na xaw ma xaw ma ci moom lu bari gis naa ko nag nii nekk mais Kara Dollé moom xam naa xam naa lañ nekk ci moom. waaw bu mu jël booy nii booy duñ ka daan ak yooyu noonu boo xoolee bu bëggee niil ak yow day day niil ak yow. Kara lu mu dafay nekk des fois di yàggal affaire ba niil. moom non booy ñorul songu booy ñorul songu mais boo Kara mbapat da ko toj. di bële lu rëy wër na Seydina Mohamed billaahi nee naa la man ñooñ seen suqlaa woon.